Bienvenue au groupe scolaire Serigne Saliou situé à Djiddah Thiaroye groupe scolaire Serigne ouvre ses portes pour la rentrée scolaire 2022-2023 pour une réussite académique et être une personnalité dans ce pays bien vite s'inscrire au groupe scolaire Serigne vous aurez un enseignement de qualité car nous avons de très bons résultats en entrant 6 sixième et au bac, les niveaux sont répartis comme suit élémentaire, moyen et secondaire. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 33 834 66 12 ou au 77 415 17 22. Vous pouvez nous envoyer un mail via zaldialo.com ou visiter notre page Facebook Groupe scolaire Serine Mbake, Engagé pour une éducation et une formation de qualité. waaw ñun euh, directeur général Eurogem daf ñu invité ndax mi ngi feete ñaar fukki atam Euh, bi mu fi defee Eurogerm bu nekkee nii te Eurogerm moo euh, yeneen entreprise yi nga xam ne dañu nekk ci agro industrie bi ci minoterie bi nekk secteur bu am solo parce que kenn ku ne xam na euh, sénégalais moom fi ñu teg mburu mburu sénégalais yi fonk nañ ko trop ba jàpp nañ sax ne bu fekkente ne xëy nañ lekk lekkuñ mburu ndékkiwuñ te it pour wax participer ci thème bi nga xam ne bi def nañ ko may maanaam blé bi nga xam ne bii moom la ñuy def ci moom la ñuy def ci mburu Hmm. ah naka lañ mën a fexe ba gën ci góorgóorlu parce que tey boo xoolee nee naa Sénégalais yi faw bu ñu xëyee lekk mburu te bale bi nga xam ne bii moom la ñuy defaree mburu hmm. amut lu ñuy bay fii donc lépp dañ koy jëgaani hmm. c'est-à-dire fu ñuy wax loo xam ne ni dëgg dañoo dépendre extérieur bale ci la bokk te yàlla def na aussi euh, situation bi nga xam ne bii ci la ñu ne avec guerre Ukraine bi wan nañu vulnérabilité bi nga xam ne am nañ ko. Hmm. parce que tey bu fekkente ne bale bi gisuñ ko sax day gën a jafe xam nga marché moom plus ngay gën a gis marchandise bi plus muy gën a yomb moyen nga ko gis plus muy gën a cher donc loolu moo tax nag ñu ne ah il faut ñu xool alternative président de la république jox ñu euh, ndigal nañu.

ci des fois conditions yoo xam ne yii xaw na méngoog suñuy condition wala sax mu des fois mu gën a tar ah waaw mais il faut ñu bay ci lu doy pour mu mën a sotti mais am na aussi beneen beneen affaire xam nga tey jii nii ñoom te loolu yàgg na sax du tey commencé woon nañ bu yàgg ñiy defar mburu di jël mburu mi bale bi di ko jaxase ak yeneen céréales yi di ci def dugub maanaam dugub suuna hmm. wala di ci def sorgho wala di def mboq wala di ci def farine di ci def farine hmm. lépp ay mburu yu ñu essayé la waaye nag pour am mburu dëgg dëgg dëgg dafa am dose boo xam ne bi boo ko ci bu ko weesoo rek mm. dose nuru dose nuru mburu am na benn conteneur vingt tonnes parce que dama demoon COP 27 li ma fa yóbbu woon ceeb la ak bële donc pour xool naka lañ ko mën a defee président de la République def ñu ci jox ay ndigal yu leer fexe leen ba ñu def ko donc dem nañu heureusement ñibbisuñu ay loxoy neen donc am na semence su blé boo xam ne bi égyptiens yi danañ ñu ko euh, baaxee parce que ñoom sori nañ ci recherche parce que ñoom ñoo ko ña ngi fay bay lu bari donc incha allah dana am déjà lu ñëw pour que ñu teste ko grandeur nature c'est-à-dire ñi ngi sélectionné ñi nga xam ne dañu bëgg bay bale ñu tàmbali ren waaw du ñàkk na boo tàmbalee man naa am doo am yenn résultats yi mais ñu commencé ko di xool di ko améliorer def ko loo xam ni tey dana dépassé bëgg nañ mu dépassé juste état bu recherche. waaw ñaar fukki at yi xam nga société bu nekk day am yoon day am histoire progression Eurogène dafa démarré ci lu ndaw yàlla dimbali ñu ñu liggéey ba tey bokk nañ ci industrie yu nga xam ni. yu yu compter Sénégal di produire Sénégal di jaay fii di exporter sous région bi donc da am na fu nga xam ne balance commerciale bi ñun jàpp nañ ci donc tey am nañu ñu ngi Sodida ah, ya juróom-ñaari at jëndoon nañu suñu voisin mais tey développement société bi toll na fu nga xam ni xajatuñ fa moo tax am nañu un hectare et demi Diamniadio dinañ investir déwén def naa président directeur président CIO Eurogerm wax na ko dinañ def 3 à 4 milliards yu nga xam dañ ko def Diamniadio pour def usine bu bees pour mën a liggéey pour jaay Sénégal tamit te exporter nga xam ni dañuy am rôle bu déterminant ci koomu réew mi. waaw njëgu mburu bi am nañu concertation yu nga xam ni def nañ ko nga xam ni acteurs yëpp mooy ñiy defar farine ñun ñi liggéey ingrédients yi ak boulanger yi. tey trouver nañu ay solution yu nga xam ni blé bi ak fi mu toll d'ailleurs wàññeeku na tuuti am na solution yu nga xam ni mënul yokk buñu faté tamit ni état bi dafa subventionner farine bi wér walé joxé nañu 15 milliards pour subventionner pour bañ ñu yokk mburu bi daf na am na trente vingt milliards ñu wara joxé wat muy effort yu mag yu état bi def pour que mburu bi bañ yok donc yoy yëpp yakar nañ ni dinañ trouver ay mécanismes ay solutions ba nga xam mburu bi du mën yok té loolu yëpp ñu ko teunk ci concertation bu nga xamni état bi jox na ko ministère du commerce pour mu saytu produit yi ñu soxla muy ceeb dëwlin suukar mburu mu bañ yokk te def naa tey ye yeeg si nañ ci ngir gën a mën a jot ay vidéo xibaar aboneel ci chaîne YouTube bu Caaroy info TV nga daal bës li nga xam ne moo di cloche bi ngir mën jot yooyu les notification